wax rek ne d'abord sant yàlla bi ñu bi ñu pare bi ñu waxee ne élection yi le 25 février la ñun commune d'arrondissement de Rufisque Nord moo gën a mag ci ci département bi pare woon nañu lépp loo xam ne lu ñu waroon a def la pour dem ci élection yi pare woon nañu bu ñu ñëwoon suba ñu ne suba pare nañu bu ñu ne ginnaaw suba ginnaaw suba pare nañu donc pour wax ne ñun la commune d' arrondissement de Rufisque Nord qui tire toujours le département de Rufisque on était fin prêt lépp pare na siège yi déposé nañu leen mandataires yi équipe bi am na équipe yu dugg wàccoon ci terrain bi pour wax ak nit ñi pour jàpp ne le 25 day neex wala naxare rek mais danañu gagné élection yi fii dans ci commune ñu pareegul nag waaye ñun pare nañ ñi naan pareeguñu bu a